waaw sa xarit sa soppe sa genn wàllam di wax ni temps bi ma nekkee RFM ma ngi koy dalaloon ci rajo yoon wi waaye ñu jël kii eh, ndax ñu mën a ndar képp mbir yi nag te dem salaamaaleykum mbokk mi noo tudd ak fay wootee waaw Ousseynou Laye la ba tey bëgg maam Seydi Ousseynou Laye Géejawaay waaw xam nga <laughs> dafa am lu ma fàtte woon bisimilah mhm. maanaam euh, damay laaj maam Seydi mhm. organisation bi mu def ci Cambérène maanaam euh, kër yi ni mu ko organisé mhm. ak itam feebaru kas bi amon lu taxoon mu toxal ko loolu laa bëggoon laaj sa wéetir bi dina ci allah balaa ma la tontu mm-hmm. waa kay Ibrahima euh, Seydina Ousseynou dina la tontu allah mm-hmm. kon nag euh, oustaz ñu déglu lii rek ba pare ñu ñëwaat bismillah la tàngee tontu Ousseynou la di alcool ñu de jajam lu ngis mbar waada wutewlaak doomi mariam sodan ustaz ban jangam ban jangam fofu doomi sodan wallahi wallahi nek mom danaka teunk nga waxtan wi yeb eh. na buñu gam gam le sina isa dem ak sina isa tay ken du len mëna xamé eh. tabarakallah deglu li war na fa daa ba muy jugaaw du xool mhm. ñu déglu yeneen ñaari versets ci topp bu pare nga commenter lool bu pare ñu ñëw ci laajoo seenu mhm. salaam bi leer tegal leer تدميرا mu mel ni kon oustaz Mbaye Tine dañ ne woon na isa dafa war a wàcc bay foog ni juróom-ñaari wal asamaan lay jógee ndekete mhm. juróom-ñaari gaal yi diggante nga xam la ak yurax wallaahi diggante boobu la wàcce leer gi riir leen nag moom nag ñu tuddee place boobu la place de la Sainte Marie d'Anne Sainte Marie Seydina Issa war mënatulaay daal di dem ñu jël auditeur bi bu paree nga commenté loolu bu paree ñu daal di salaamaaleykum mbokk mi nag doog fay wootee allo ba ma ne wàññi sa rajo dina baax de allo allo salaamaaleykum lay lay aleykum salaam yow ya, la kenn. man la soxna su Oustaz Baytir laay soxna su magam. Eh, soxna yow la kenn. man la Adja Gueye ndaw. kon ba bisimilah Oustaz Baytir. Ah, waaw soxna si. laay Mokhtar. laay Mokhtar laay. laay laay. laay Mokhtar. yal yàlla dolli leer. amiin. yàlla mottali xéewal yi. amiin amiin laay Mokhtar. waxtaan wi neex fa tabaarakallah. fi mu nekk kër gi ñëpp. ke wax. alhamdulilah. yal na yàlla dolli ubbi. amiin yàlla na la yàlla jàppale. amin amin la maxtaar ah, soxna si nekk jox nañu ko ndigal waay. nekk jox nañu ko ndigal waay na contribuer soxna dama mënul wax sax ñëpp. salaamaaleykum yal na yàlla nangu ziyaara. sunu soxna la amin amin lay maxtaar Ibrahima amin amin amin. ngeen ndax te lii nga wax si moom Seydou tey. képp ku nanguwul dogal boobu si yow. laay sax. laay waxtaar. yàlla yàlla ñu si yàlla boole. laay waxtaar. laay waxtaar. waa kay jërëjëf. ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant xool ya fees oustaz. moo tax mu mel nii. dëgg collègue oustaz mel nii wàcce na yaraax labbe ya doon ka mhm. ay lampi sëggal na leen ñu yiir maam Seydi daal di wàcce war maanootu laay jëm yoof mhm. julee fa njool ba bàyyam boole njaboot ga uuf leen. Mhm. léegi nag bu mu wàccee nag yaraax war maanootu laay dem yow du fa julee bàyyam. waxoon nag ni ñëw bi muy xutbaat. Mm-hmm. daal di wax ku fi sama baay indi woon mm-hmm. suma baay jóge na fii mm-hmm. dootul ñëw ba ilaa yawmi diin waaye nag ko fi yàlla indi woon xayun layun moom yàlla mi ngi fii kon nag nan nga nan nga loolu ak noo ko gisee ba pare ñëw ci xutba boobu daanaka euh, laaj bu jëkke bi sëñ bi la sëñ Ousseynou Ousseynou Mbaye waaw wax dëgg yàlla li ñuy wax ci waxinu jamono assainissement Seyna Isa moo ko jëkk taxawal ca Cambérène bi maanaam ñuy yaatal dëkkin wi ak dëkkuwaay yi kon loola moom gis-gisam dafa jiitu woon jamono e, bi jamono peste bi amee itam ci 1914 fekk kameren mu nga nekk ci ndingala ca la ka toxale ba ci booru géej gi kon sanca boobu mu ngi am ci 1914 kon dafa tabarakallah loolu la ñuy tontu ci laajam lii sëñ Ibrahima wax nag soo demee ci téere bu ñu bada iu zuhur dañoo wax ne Sina Isa buy wàcc mu ngi jóge juróom-ñaari asamaan wàcci war daaba judul xoox kon terrain la yéeg góor gi Mamour jaxate daf ci indi benn kéemtaan bu doy waar ndax dafa wax ni yanzilu isa min alsama ila beyt almaamuur moo tax borom xam-xam yi war nañu bàyyi xel foofu ndax al beytul maamuur ak beytul maamuur bokkul ci prix ndax al beytul maamuur mooy néeg bu ñu dundal waaye bu dee ne beyti bi amul al ñu ne baytil maamuur xam ne bayt bi dafay nekk idaafa ci maamuur gi dafay firi néegab ku ñu dundal téere yi nag waxuñu al baytil maamuur dañu ila baytil maamuur amul al euh, maamuur jaxate yal na yàlla dolli leera mu dal di ko firi mu ne man kat sama zahir ngeen xam waaye man maamuur jaxate ku ñu delloowaat la sama ruux ma war a dundaat fekk se kuréelu mahdiyu moo tax ila baytil maamuur ci néegu ku ñu dundal kon jëmmi mu wàcc ci këri góor gi Mamour Diakhaté rek benn la ci lii déggal ah. <laughs> jërëjëf oustaz euh, professeur euh, Baytir Lay mhm. dina wax ne lii Serigne Abo wax ni wax dëgg yàlla xaw ma Seydina Omar xaw ma ko ci wate ni professeur mhm. vous êtes euh, weesu nga loolu sax di dem alhamdulilah ñuy ñaan yàlla na jëm kanam incha allah léegi nag kon mbokk yi maa ngi tëjaat antenne bi ba deux heures et demie ma tëjiwaat ko voilà pour ñii kii ñu bàyyi nag ñu dugg ci xutba Seydina Imaamul Mahdi alayhi salaam barakallahu ku woo ku woote tamit naa la jël hors antenne wax ne rek ni woote nga fi Euh, Sina Isa yal na yàlla dolli leeram bi nga xamante ne ñëw na wara a jullee se papam ma ne kemtaan bu yéeme la ndax Sina Limaamu denc nañu ko ñetti fan gannaaw bi mu génne àddina te jamono yooyu nag congélateur amul amul benn climatiseur waaye yàlla dal di ko sàmmal yaramam ba ci ñetti fan yooyu fa tabaraka la yàquwul Sina ma ñoon dal ko. te yéen kenn du jullee sama pap am na kéemtaan yu bari yu fa dox xam naa ne xajul ci waxtaan wi danañ ci dellu si waat. allahu rabbi waaw waaye ba mu ñëwee mu dal di am benn xutba boo xam ni moom la dalale mbooloo mi mu ni bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam mu ubbee ko ci turu buur bi amee yërmande àddina ak àllaaxira julli. ci yonent bi nga xamantene moy mooy sangu mbindeef yi mu alhamdulillahi allazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir ene man sina Isa mangi ubbe ko di sante yàlla mi nga xamantene moy dekkil ni wi ci seni bammel te jago itam man gu àndul ak télé wassalatu wasalaam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain nene ne jàmm yalla yalla wacce ka ci sang bi di sangu yonenti rogatal ke ci ñooñam ak i sabam boole si mu amma ba'du gannaaw sama kubbe fa min sayyidina isa ruuxillah najli bil khair wal walkaram yek len ne wax ji mu ngi ko ci seyna isa ruuxillah di dom ci seyna limam di tettalitam ci mom seyna limam di kan di sanga bi nga xamanteni tedd nga ak yiw rek lañu ko xamal من إلى جميع أصحابه بين الرجال والنساء لم أترك أحدا بين القريب والبعيد mune ma yëkki wax ji jemele ke ci mbollem sahaba yi mu làmb góor ak jigen làmb ak dëkk ak gan ko jige ko sori mune usallimu alaykum maa ngi di nuy di jam sante ak yéen wa ushirukum bi anna abana imam allah qad tufu ufiya ay qad kharaja min ad-dunya daril fana ila al akhirati daril haqq wal qarar mune may len yëgal ni sama papa limam fatuna waye ngir dogat le ngam yu tax yi mu ni ne firi wul ne dafa laqku ci bara wara delusi waye génn na adina di keur gi jeex ak lu mu jabote dëkkmal jëm àllaaxira di keuru deug gi sax wa alamu annahu kana yad'u ila allahi bid-din al-khalis mune xam len ni sama papa limamu dafa dandi wote jemele ci yàlla waye ak diine ju sel ولم يكن yadu ahadan لنفسه ويمسل وكن كبابا kon dal seen alimaamu musul woote lu dul diine ju sell ji ko yàlla jox waaye musul oo taalibe yi ngir gëmloo leen boppam wala wan leen boppam nëbba leen baram mu ne fa man kaana yuminu billahi wa rasulihi falyabud wal yuxlis ibadatahu bila ishraakin mu ne képp kuy uyoone gëm nga yàlla ak ndawam ne ne maa ngi lay wooman si na isa nga jaamu yàlla te sellal jaamu gi fexe bokkale bañ ko njar ومن كان يعبد لرؤية أبي إمام الله فليدر عبادته لأنه مضى كما مضى الذين كانوا من قبله ويكدون دي جامو نجيسالا سيرال كو سما بابا ركتخ نيني بابا نغا بايس سا جامو خامني سما بابا وين كوم نيكا جيتو وون جامو جيب سو ديني جيمال سما بابا موتخ بايل سا جامو واي بو يالا تخون جامو مون نغا ساخ جامو جي خامني جامو يالا ويتال كو كنل كريك لأن الله تعالى قال من يلا دفا وخني كل نفس زائقة الموت بكن بمسلم دبون دينغ مسدي كون سما بابا لوكو يلا تيرل ييب بكن نبو يلا مسلون دوندو كون نك دي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام مفاتلي ني كادو يلا يلا من لبلوسوف جابوتي دا فاي جيخ واي لي في يايو ديس موي سا جيمو بور بيغا خامتيني موم ماغاتا تيد من وايضا اعلمكم ان سيدنا امام الله كان يقول من ميل خملني سما بابا سينا الامام دانا دي وخني انا مرسل ومهمور بالتبليغ وما بلغتكم الا ما امرني الله به اليكم لتعبدوه مخلصين له عبادتكم حيث كنتم من سما بابا كد يوننتي كان وخلوكم وكا وخل بابام دانا دي وخنا ندولا لو يالا يوني ndaw laalu lu yàlla digéen ngir ma jotal leen risaala ji la ma leen di jotal nag mooy ngeen jaamu yàlla sellal jaamu gi fu ngeen mën a nekk mu ne wa uallimukum anni ma amartukum illa bi zalik mu ne man sina isa feddaliwu ma lu dul ndénkaane li sama papa daan di mu ne wa usikum bil ijtihaadi fi taatillahi wa rasulihi mu ne may leen dénk itam ngeen farlu ci topp yàlla ak ndawam واقموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان بإخلاص من ين صحتي جولي صحتي جوخي أزكا صحتي وغور ويرو كورت سلال كورنجي واخرجوا زكاة الفطر في الوقت من من سينا عيسى ميلين دينك ген فرلو تي نتا أزكا يمورون كورتي وقت وينين كورانات ودوموا على كسرة ذكر الله في كل وقت من ميلين دينك إتم ngeen sax ci bareel lu ngeen di def zikrullah ci waxtu wu ne jamana bu ne wa tafakkaru fi mu'jizati llahi ka xalqi samawati wal ardi wa ma baynahuma mu ne ngeen bari lu ngeen di xalaat ci kéemtaanu yàlla yi mel ne bind ji mu binde asamaan ak suuf ak la mu doxale ci diggante bi mu ne wasmitu amma la xayra fiihi mu ne man sina isa maa ngi leen di dénk ngeen yar seen mañ ci noppi ci loo xam ne yiw newu ci ndax nak lamagn bu la ubbilul bàkkar ubbil la yiw kon nak lo natane boko addo ci sa làmmañ mu ubbil la bàkkar itam mune ngal ngalawaay na ngeen ci màndu jénge ci sen lamagn wa ghadul basar amma yamnau lahu nazarahu mune ne na ngeen dem ma sen xol ci lépp li nga xamantene yàlla tere na ngeen xol ko waxfazul jawarih min al muharramat wal makruhat mune ne na ngeen sàmmoonteeg seeni cër ci lépp lu yàlla araamal ak lu musib kon nak bët bi bu ci xool lu la neex làmmiñ bu ci tudde lu la neex nopp bi it bu ci déglu lu la neex lenn lu ci nekk la nga koy na nga natt ndax lu yàlla gërëm la wala lu yàlla tereen mu ne wasbiru na ngeen sàlloo muñ li qawlihi taala ngir li yàlla wax ni yaa ayuha allazina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu laalakum tuflixuun yàlla mu ne na ngeen gëm yéen ñi gëm mu ne na ngeen muñ na ngeen muñalante na ngeen tàppote takku jëm ci yàlla te ragal itam seen borom amana yàlla jaarale ci seen ak taxé mune wardu bi qada illa ndax dafa ñëw fekk taalibe yi dal metti lu salfa ñoo lol ci dem ji papam dem mune kon nak ma ngi leen di dénku ngeen nangu atte yàlla ak dogalam washkuruhu ala niamihi ngeen sante yàlla ci ay xéewalam wa'zaru zulma bainakum li anna allah harrama zulma ala nafsihi وجعله محرما بين العباد mu ne ngeen sàmmonteeg bañ a tooñante ci seen biir ndax nag yàlla mi leen bind am sañ ci yéen dafa aramal tooñ ci boppam jëkk mu aramal ko ci seen diggante mu ne wax wa'fu an mbax ba'dal asarat mu ne na ngeen am matu di jéggal seeni mbokk lenn pakk yi waxsinu ila man asa ilaykum ki am mata di ñaawal jëme ci yéen na ngeen am matuk sellal jëme ci moom واجتنبوا أيضا الجدال والمراء والتسافل والتعايب وغير ذلك مما منع الله منه العباد من نجان مايتان دكو داجي ويران تيوي في ولي خول خيبان تتخلن تي اك يانن ييغا خامتني يالا تيرن كو اي جامم من والفوا قلوبكم في الخير من نغال لا واي مان سينا عيسى ماغي لين دي دنك نين ديغل سين خول تي يو وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر نعن كي ديغلن تمباخ بعن دي جفي سخي ترن تسافن بعن دي باي من ومن آمن بالله ورسوله فليقتدي أبان إمام الله في خصاله وأفعاله ولا يقول آمنت فقط بغير اتباع أمره وذلك خسران لمن يفعله من كيف كو خمني يانغي ويوني غمغي يالاك ندوام mu ne man Seydina Isa maa ngi lay woo nga jëllu ma fi jëllu fi ku dul man roy sama papa ci jikkoom yu sell ya roy ko ci jëfinam yu yiiw ya waaye bul wax ne taalibe naa gëm naa dal di ko fa yemaat li kii di dul nga topp ndénkaane sama papa ak ndigalam mu ne loola kat dafay ommatanteeg taalibe ba yóbbu ko ci ëttu pertangi kon nag li am solo Seydina Isa dénk nañu ko ndax nag gëm Seydina limaamu la cay tettal mooy nga jéem a niru limaamu ci sellam ak yiwam ndax refen ngeum ci baylay moy mooy jéem a roy jikkoom waxew yu jëfew yu mandukat li mo gën ci talibé kon nak fexe nek talibé bu seyna naa limaam muy sagoo moo gën sàggan ba nek talibé bu sago limaamu te gu jeex limaamu du ko fekke ci sa jikko du ko fekke ci sa doxali seyna Isa muné wa anna abi qal lam ad'ukum alqital wala aljihad muné sama papa dana di wax ni wowuma len ci xare wowuma len ci jihad ولم يكن له سكين ولا سيوف ولا رماح wala gayru zalik ila annahu kana yahmuru bi jihaadi nafs mu ne sama papa yorul woon saatu si gën a tuuti yorul woon xeej yorul woon jaas yi waaye dafa daan di digle jihaadu nafs